ni euh, fan yi wala sax président sàkku na ci ñoom ñu daal di mbir yi ba nga xamante ni si lu jëm ci mbirum budget beeg yooyu yëpp euh, jëm ci mbirum budget 25 bi 2025 bi dina ci gën a daal euh, taxaw ba lépp mën daal di yemb ca nam waree ba tey dañuy def sax ci assemblée nationale boobee parce que booba léegi gis nañ que ni bi résultat yi di commencé tàmbali léegi ñuy gis waxu président de l' assemblée nationale ñu gis sax ay nit yu fi jóg Moustapha jàpp ni kooku Ousmane Sonko war na mën a bàyyi primature bi dem foofee ci mm-hmm. waa am na ñu bëri loolu lañu yaakaar parce que dañu jàpp ne Ousmane Sonko war na ko fa mën a bàyyi dem man man bokkuma ci gis-gis boobu parce que man dama bokk ci ñu yaakaar ne Ousmane Sonko place am mooy primature euh, foofu la nekk di coordonner lu am solo parce que projet bi nga xam ne tey jii euh, moom mooy ki nga xamante ne moo ko mën nañ ne moo ko moo ko té jox ko jomaay Diomaye nekk président ñu war koo doxal mhm. kooku su demee toog assemblée nationale boo seetloo ñu bëri ñu naan Ousmane Sonko na dem président assemblée nationale dama xamul man fan lañ ko teg quoi mhm. maanaam mu bàyyi Diomaye mu def nangam ak nangam pour man wax ji nekkul foofu euh, na dem fa mu nekkoon am na liggéey bu mu fa door mu yeggali ko dina am solo trop te tey ji risque lay doon nga indi fi keneen euh, def ko premier ministre après xamoo ndax li nga naal commencé ko liggéey dina la ko xamoo ndax rigueur bi nga xam ne Ousmane Sonko bëgg na ko indi ci administration bi ak ni mu ko tegee ci administration bi nii dina wéy di am donc am na ay incertitudes yu bëri yoo xamante ne dina la fa dina dina dina dina ñëw euh, tegu sa kaw loolu moo tax pour man euh, débat boobu euh, Aliou Badara dama jàpp ne place Ousmane Sonko primature la te loolu laa mës gëm primature la war a mën a toog continuer liggéey bi di coordonner di coordonner activité wu gouvernement parce que xam gouvernement. dafa am solo mu am koo xamante ne tey jii dafay nekk dox digganteem ak le président de la République kooku mooy premier ministre bi léegi nag am na yu bëri yoo xamante ne ci administration bi balaa moo yegg ci président de la République day yegg ci premier ministre am na document yoo xam ne da koy contresigné maanaam président dafay signé premier ministre signé kon kooku du ko ndaw doon tudd ko ndaw nag léegi waroo ko jox n'importe qui waxuma ne Pastef amul kenn ko nekk déedéet mën nga génnee fukki nit wala vingt personnes yoo xam ne ñëpp mënoon mais vu Ousmane Sonko li mu liggéey ci mbir mi ak fi mu ko téye ba waxtu wi su ko fi bàyyee dem assemblée nationale di présider ay séance di toog ak ay député di nekk ci ay plénière ak ay commission je pense que liggéey la boo xamante ne loolu euh, am na lu ëpp ak lu gën a bëri loo xamante ne mën na ko jariñ jomaay euh, bu nekkee ci wetam rawatina fële ca primature du sa xalaat sax mais euh, Ousmane Sonko jógee primature dem président assemblée assemblée nationale euh, ba rôle la mën a jouer assemblée bu particulier ba war a tax mu bàyyi primature bi euh, pour di di dem fële ne mais loolu loolu moo tax ma ne amul pertinence mais mm-hmm. yow am nga majorité oui tu as cent trente députés kenn ki la gën a jege seize députés la am keneen ki ci toppaat sept la am ñeneen ñi am trois kenn ki am deux ñeneen ñi am un waaye léegi foofu ndax da fay dem foofu da leer ne amul benn vote buy am nga bëgg dara ñu xañ la ko amul. parce que il paraît que le rôle du président de l'Assemblée c'est pas aussi compliqué. non non non non c'est pas aussi compliqué déedéet yow président bi toujours lépp looy def règlement mm-hmm. intérieur bi ngay sukkandiku Alioune Badara lépp lépp règlement te règlement intérieur boobu ngay sukkandiku am nga ay secrétaire yoo xam ne dañ la siy dimbali mm-hmm. tey ji balaa ngaa ñëw toog dinañ la séance bi kat président la ñuy demee lii ak lii la ñuy voté nii ak nii da nga mooy ñooñu nga gis ñu toog mm. euh, mm. euh, nga doon gis ñu toog ci wet bi di assister kii di kii di président bi mm-hmm. yu bëri ñoo ko si dimbali yenn saa dara day am sax ñu ñëw déy président bi na ko ni yëkkati règlement intérieur teg ko ci wetam ne ko président ah fii mën nga appliquer lii ak lii ak lii parce que député sàngam mi ngi def nii mm. bu ko defee président bi daal ne tëng tëng tëng écoutez moi écoutez moi nangam ak nangam lii ak lii mooy ci leen ni su moo leen tënk moo leen di boole moo leen di tàqale waaye léegi loolu am fa lu jaabul am fa lu toog di mathématique am fa lu toog di calculer te yow président nga ñëpp ngay yemale tey ji bu règlement intérieur bi ne président groupe parlementaire bu ne cinq minutes lay am mënoo faa teg Ousmane Sonko ba président groupe parlementaire ñëw mu jox ko dix minutes mënul ne mënoo faa teg Ousmane Sonko ba benn non inscrit bu ñu ne trois minutes ngay am Ousmane nekk kon foofu amul benn stratégie wala benn calcul wala benn pexe boo xam ne dañoo Ousmane Sonko mën na ko fa tey député amul moo tax ma jàpp ne amul sens parce que amul fa benn enjeu bu fekkoonte ne tey jii sax dañu dem ba à la ñu ne euh, comme bennoo la woon ak euh, ak Yewwi benn député lañ la ëpp ëppalee mën nga ne waaw damay ñëw fii damay soxla député yi damay soxla wane rigueur damay soxla nangam ak nangam mais yow tu as cent trente députés li rawee oto mënu koo daw loo fa yóbboo Ousmane Sonko te mu mën nekk primature di def ay conseil interministériel di def ay circulaire di ko jëmale ci administration bi am sañ-sañ toog ba ngoon wala toog ba benn heure mu woo benn ministre ne ñëwal sama bureau ministre bi taal otom ñëw toog mu ne ko dossier bi may dégg lii ak lii ak lii loo ci mën lii ak lii ak lii bu mu amati lii ak lii ak lii moytu ko dégg naa fi nangam ak nangam lii bu ko def lii boo ko signé du baax boo ko yóbboo assemblée boo woowee ministre woo ko ministre mu ne mais attends man man je suis confus parce que suñu premier ministre mu ngi ko fële te le président de l' assemblée nationale moo may woo warumaa woo séparation des pouvoirs la ñu wax moo tax ma jàpp ne euh, yóbbu Ousmane Sonko primature wala ñu ko bëgg a yóbbu primature boog man comprendre ma ban calcul lañ ci bëgg ak fan lañ ko teg parce que man dama dama am yaakaar rek ne euh, place bi gën ci moom ak fi ñu ko war a teg moo di euh, assemblée nationale. autant pour moi moo di primature. d' accord euh, daan nay am solo mu nekkoon jëm ci euh, kan moo war a doon li nga xamante ni moom moo di le président de l' national pour ñu koy daal di euh, sàkko ci kaw ki nga xamante ni moom moo di le premier ministre di Ousmane Sonko mu bàyyi fa la diplomatique ba ngir wutali fa nga xamante ni moom moo di ci assemblée nationale ngir daal koy jiite donc lu ñu mel daan nga ciy dégg jàngat bi nga xamante ni Moustapha daan na koy amal ba tey ñu continuer waxtaan si lépp lu jëm ci mbirum actualité sans oublier di leen nuyu yéen aussi yéen ñi ni yéen a nekk dañu seetaan jamono jile ci euh, sans commentaire euh, bu ñu jógee foofu dañuy dem wax ci euh, wàllum yoon ak convocation mais mais Badara am na tamit ñi bëgg a nekk président assemblée nationale ah ñi ko ñi ko ñi ñi ko ñi ko nit ñi yaakaar comme bu Ousmane Sonko ñëwul ñi ñu yaakaar ne war nañ ko mën a doon dafay dafay am solo ñu wax ci ah, d'accord d' accord donc comme euh, jàpp nañ ni parce que aussi la plupart ñun damay gis sénégalais di wax ñoom ñu si bëri. Mm-hmm. Euh, boo ubbee antenne beeg wala ñuy gis si commentaire ñu si bëri jàpp ñu ni bëgguñu bokk moom mu dem fi nga xamante ne moom mu di assemblée nationale. donc mm-hmm. euh, mun nañ jàpp ni xëy na keneen lañ fay daal di teg donc ci mbir moomee naka lañ ci mën a jàpp ñoo xamante ni si xëy na sax bon war nañ mën a jiital lii di assemblée nationale. waa xam nga débat boobu tey jii. Mm-hmm. mi ngi commencé di yëngatu. maa ngi gis tey ce matin mu am benn quotidien bu xëy mu indi cinq personnes ñoo xamante ne euh, ñi ci xam bëriwul. ñu ne cinq nii ñëpp euh, ñoo nekk ci liste bi ñu yaakaar ne war nañoo mën a nekk assemblée nationale. man jàpp ma ne de cinq yooyu bu ci amee kenn koo xam ne war naa mën a nekk président assemblée nationale dina ma bett loolu. Mhm. mais dafa am yoo xam tamit il faut que nit ñi bàyyi ci xel xam nga président assemblée nationale yaay deuxième personnalité de l' état gannaaw président de la République bi génne yow yaa fa yow yaa ci topp. premier ministre doog a ñëw kon kooku du du du ku ndaw. Mm-hmm. du n'importe qui tamit. kooku koo jox war na doon koo xamante ne dafay compléter le duo Diomaye ak Sonko. Mm. c'est-à-dire bu doon phrase laay wax dama naan sujet am na verbe am na complément d'objet direct bi moo des. le président mm. de l'Assemblée nationale doit être le complément d'objet direct bu sujet bi Sonko euh, sujet bi Diomaye verbe bi Sonko. président euh, assemblée nationale euh, mooy euh, mooy le complément d'objet direct mhm. xam nga dañuy jàngal ne le verbe et le noyau de la phrase mhm. moo tax mënu mu mu mu mu samp ci digg bi leen saa mu sampu feneen bu ñu ko mhm. bu dee ak sel selon phrase bi ni ñu ko bindee mais ak li ñu ci mën a comprendre rek mooy kooku seen complément la war a mën a doon seen complice la war a doon koo xamante ne dañuy am dégg-dégg lay war a doon koo xam ne am nañ entente ak moom la war a doon léegi kan la war a doon chacun est libre de porter son choix sur une personne ku nekk libre na mu jël sama choix ma teg ko ci kenn waaye bu dee choix boo mënta jël tamit da ko war a justifier nga ne ah man kat su ma njortee ne Alioune Badara mi mën nañ ko def président assemblée nationale hmm. dama naan kat ah Alioune Badara parce que lii ak lii ak lii ak lii ak lii xam nga ñu bët da ngay dégg ñu ne Amadou Ba bu Pastef bu cees war na ko mën a téye boo waxee ñu ne Amadou Ba maîtriser na droit mën na droit am na taxawaay bu am solo assemblée nationale naam yàggu fa. Mhm. parce que Birame Souleye la remplacé moo nekkoon suppléant ramb bi euh, bi Birame Souleye euh, duggee ci gouvernement bi Amadou Ba daal di dem duggi ji nekk député am fa taxawaay bu am fulla am fayda wax dëgg yàlla ñu gis ne buñ ko fa yóbba man dama naan waaw Amadou Ba mën naa nekk président assemblée nationale yeneen profil tamit am na ñoo xamante ne mën nañu gis nga 130 yi députés yi Pastef am su ma yeboo ne am na ci 30 personnes wala 20 personnes yoo xamante ne tey ji kuñ ci tànnoon def ko président kenn du waaw parce que am nañ fi ay profil yoo xamante ne wax dëgg yàlla mën nañ koo doon léegi nag ki koy doon le dernier mot euh, président Diomaye ak Ousmane Sonko ñoo ko moom ñoom ñoo xool ki ñu koy jox mais ci biir liste boobu day am ñeneen ñu génnaat boo ne Amadou Ba après mën nga tudd Ayib Daffé ñu bëri dañ naan ah Ayib kat war na mën a nekk président bi parce que moo nekkoon seen président groupe parlementaire parce que expérience parlementaire tamit daf am solo hmm. maanaam nga nekkoon assemblée nationale daf ci am solo li waral loolu mooy tey jii gis nga Macky Sall ba mu koy jox Amadou Mame Diop xam nga Amadou Mame Diop kenn xamu ko woon. Mhm. et pourtant Amadou Mame mi ngi woon ci assemblée nationale ba mu nga woon ci assemblée nationale ba mais gars yi xamuñ ko woon ba ñu tegaatee beneen ba gis ko ba ñu tabb ko président assemblée nationale si lañ gis ñu ne ah kon ki kat yàggoon na fi mu yàgg fa nekk kon loolu expérience bi mën na doon benn atu wala benn plus boo xamante ne mën na dimbali. Mhm. kon euh, ku mel ni Ayib nekkoon président groupe parlementaire mën mën na mën na ko doon aussi. El Malick Ndiaye bi ñu gis ci liste bi tamit am na ñu bëri ñu ne waaw euh, ñu ngi koy séenu mu nekk poste président assemblée nationale mais man personnellement bokkuma ci ñi nga xam ne yaakaar naa ne mën nañ ko koo jox parce que am na liggéey bu mu door fële ca euh, mm-hmm. ministère euh, du transport am na yu mu fa door am yu bëri yoo xam ne mi ngi ciy góorgóorlu mm-hmm. man de dama jàpp ne doon na gën a logique bàyyi ko mu wëyal foofu liggéey ba nga xamante ne mm-hmm. moom na ko fay def ak li nga xam ñi moom lañ koy gisee mu am beneen daam boo xamante nit ñi dañ koy fàtte muy soxna Aïcha Touré nekk ci diaspora bi daam boobu euh, doon koo xamante ne man ce matin maa ngi ko wax profil am na si na si na si nit ñi bàyyi xel. Mhm. xaw ma ndax daf koy doon xaw ma ndax du ko doon mais man ce qui est sûr et certain mi ngi ci short liste bi nga xamante ne moom la président Ousmane Sonko yor loolu moom am na. mu ngi ci liste bu tuuti bi nga xamante ne dañ naan ñii ak ñii ak ñii si kii lañ ko war a tànn man xam naa ne moom mi ngi ci liste boobu lu ko waral mooy xam nga maa ngi lay wax léegi dafa war a nekk benn complément d'objet hmm. gannaaw euh, Diomaye Ousmane Sonko dafa war ne complément d'objet bu dee complément d'objet bi ngay seet ndam boobu tey ji ku yàgg ak parti bi la. Mhm. bokk na ci militant de première heure yi ñu teel a adhéré teel a bokk ci partie bi lañ doon loolu benn benn la boo xamante ne daf koy daf koy daf koy dimbali beneen mbir bi ci am mooy tamit entente ak confiance bi ñu wax dox na ci digganteem ak Ousmane Sonko waaw parce que loolu moom lu am la ñoom ñaari yàgg na ñoo xamante loolu foofu sax la bi juddo ba mu bokk ci parti bi ñu yàgg xamante ne lu yàgg. loolu beneen mbir la tamit mën na jur confiance. Hmm. beneen mbir tamit booy acte boo xamante ni ñu gis ko mooy ba ñu ba mu njëkkee dugg assemblée nationale xam moom ci diaspora bi la nekk ba mu njëkkee dugg assemblée nationale deuxième questeur lañ ko defoon. Hmm. kon loolu tey ji euh, koo wóoluwul wala nga teg ko fi doo ko jox poste boobu noonu ñu renouveler waat bureau Amadou Mame Diop bi. biñ ko renouveler ci deux mille vingt deux parce chaque année dañ la dem nekk ji. mu dem nekk ji huitième vice présidente moom Aïcha Diop boobu kon nga xamante ne fii euh, président bi di toog moom mooy euh, ku nekk ci parti bi ku fa mës a toog présider euh, séance kon am na ci benn taxawaay boo xamante ne pour man nañ ko sóor bu baax ëllëg buñ ko tabee wala mu bokk ci ñu jiite assemblée boobu noonu bu mu bett kenn. Hmm. waxuma nag moom la moom lay doon mais damay analyser rek par rapport ku nekk ak profilam ku nekk ak ay chance am. Hmm. mais ma dama jàpp ne bokk na si ñi nga xamante ne am nañ ay chance. am nañ ay atu pour nekk présidente assemblée nationale et puis beneen mbir tamit mooy soxna mu doon une première ñu am président de l' assemblée euh, président de l' assemblée nationale bu nekk soxna. rawatina voilé aussi. donc loolu dina doon beneen symbole boo xamante ne mën na am lu muy wane soxna gi mu doon mën na am lu mu lu mu wane waat tamit mën na am euh, loo xamante ne politiquement parti bi ko def Pastef mën na ci gagné dara. parce que gis nañ Mimi Touré bi ñu ko éjecté après li mu juróon am na féministes yu commencé woon di yëkkate voix naan waaw nangam li muy jigéen moo tax nangam ak nangam mais ñi bu ñu ko defee dinañ def une première. parce que boo fàttali ko Abdoulaye Wade bi mu njëkkee ñëw indi fi premier ministre bu jigéen bu njëkk moo ko fi indi mi Mame Madior Boye dafa euh, dafa amoon lu mu lu mu lu mu yeewoon ci xolu soxna yu bëri mm-hmm. euh, donc kon post présidente assemblée nationale moo des Macky Sall ministre des affaires étrangères moom la moom la kase woon foofu euh, ne léegi jigéen war na ko mën a occuper yu fa Aïssata Tall Sall donc bii bu ñu amee une Aïcha Touré je pense que mën na doon loo xamante ne mën na mën na mën na changer donne yi par rapport ak genre yi ak yenn poste yi ñoo nekk ci dëkk bi d' accord euh, merci beaucoup daan am solo mu jëm ci mbirum xëy na ko war a doon. Euh, futur euh, li nga xamante ne moom moo di président de l' assemblée nationale bu euh, Sénégal donc ginnaaw li nga xamante ni si moom moo di yile élection daal di nay jàll nuyoo bu baax ñi nga xamante ni à chaque fois dañuy continuer di ànd ak ñun ci li nga xamante ni moom moo di live bi les sans commentaire comme ni ñu koy defee saa su ne rek chaque ajuma dañuy daal di dikk waxtaan ak yéen ci lu jëm ci wàllum actualité ci biir réew mi donc ba tey Moustapha dañuy continuer ci mbir mi ginnaaw wàllum politique mag yu ni mel